ci seetaan na ci nekk ci sa tur ak taw waxtu bii ñuy alors euh, dix huit heures cinq minutes euh, fii ci suñuy locaux ñu door émission ñu ñu daal di door émission li nga xam ne mooy émission wu micro waaw euh, ñu dooraat rek euh, li nga xam ne mooy nuyoo bi ndax nuyoo euh, dëkkandoo jàmm ca gën te yéen ñi ñuy seetaan di leen nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci seen sant di leen ñaanal yàlla jàmm il fait 18 heures 5 minutes ci waxtu wi ñuy àddoo ñu leen di ñaanal yàlla jàmm wér-gu-yaram ak gudd fan di ko ñaanal xalif yi nekk ci Sénégal te di ñu jóg ci di ñu ñaanal di ko ñaanal waa nguur gi waa gouvernement bi yàlla yàlla boole xol yeeg xalaat yi ak ñoom moom ak waa opposition sëpp ci biir cin lekk ah lay lay lay baxa nga ca biir waaye yàlla na yàlla boole xol yi ñoom ñëpp ñu ànd ci benn ah ndax euh, jàmmi gouvernement bi mooy jàmmi peuple bi kon yàlla na yàlla def jàmm def jàmm ci tali bi hôpitaux yeeg euh, maison d'arrêt yi yàlla nañu yàlla yónnee jàmm ak euh, tawféex ñun ñëpp Mame Rane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay saa di la wax ne foofu nga euh, daanale foofu lay yëkkee rek muy jàmm ndax lu dul jàmm rek jàmm moo ko gën. waaw te réew mi fii mu toll xaw ma man réew moo soxlawul jàmm waaye réew mi soxla na jàmm ndax benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar di ñaan yàlla rek na fi yàlla def jàmm di nuyu waa Thiaré di nuyu waa yëmbal gi nga bi di leen ngeen di toog euh, waxtu yu ne di ko toog di ko teewlu muy fii la commencé na ñuy nuyu ñëpp di leen jaajëfal. ñëpp di jaajëfal ñëpp euh, ñoo xam ne nag ànd nañ ceeg ba tey euh, suñu sponsor le leader muy Orange di ñu gunge fii ak at ci émission bi ni ngeen ko xamee ñu ñu indil leen tey li nga xam ne mooy orange épargne ah orange monnaie épargne OM épargne waaw ci sa orange monnaie mën nga ci épargner xaalis ba nga xam ne daf lay jural ay taux yoo xam ni ak ay euh, taux yoo xam ni dafay toll ci 6 pour cent ci at mi. 6 pour cent yooyu nag ñu lay dollil ngay denc sa xaalis ci sa Orange Money yéen ñi ngeen xam ne ay étudiant ngeen wala ay professionnel ngeen wala li nga xam ne ay mère de famille ngeen wala commerçant mën ngeen cee liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la ni nga koy defee rek lu dul da nga am nga sa application Maxi It acca demal ci sa application Maxi It boo demee ci Maxi It bi nga ubbi sa menu Orange Money nga dem fa ñu bind banque di nga fa fekk fu ñuy wax M tiret Baobab ah M tiret Baobab nga daal di topp rek indication yi mu wax la ni ngay def ba def euh, euh, li nga xam ni mooy Orange Money épargne euh, Seydina maa lay nuyu. maa lay fay saa bu baax di la ziarat di ziar Mamran di ziar képp kuy Sénégal waxtu bi jàkkaarloog seen émission bi di fii la nga xam ne Sénégal yi wax dëgg yàlla sax am ko apprécié ndax fu ñu dem rek dañuy wax ne nuyu la ñu saa ak Mamran ndax dañu gis ne tout le temps rek message yu jàll dafay nekk yoo xam ne dafay nekk message orientation lay nekk tey nag saa bésu ndam woon ca Ndar tey fu mu ndar boo demee ñu ngi ko fay màggal muy bés bu am solo 1895 la fi tubaab bi ñëwoon fi ne dafiy génne diine nag gant ak ak magu diine yëpp kon tey bésu ndam la ñu képp kuy murit ak képp koo xam ne rek nga nekk ci réew mi di ashhadu an laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah tey nag muy ñaareelu fanu burdu ñu siy ziarat ñi nga xam ne ñoo ngi waajal gàmm gi muy rawatina Tiwaawan Njaasaan Kaolack Laayeen fépp rek ñu leen di ziar bu baax baax di leen jaajëfal saa jaajëf yow da nga bëgg yow lu ma def rek nga def ko kii bu ma demee ci tailleur ñawlu fa mu xam tailleur bi dem ñawlu la ma ñawlu bu ma ñëwee ci émission bi sol jiin ak ay ay basket mu ñëw ci émission bi sol ay jiin ak ay basket <laughs> ah lu ma def mu jéem ko def bu ma takkee ay ay ay ay ay fanti kii nii accessoire mu jéem a takk. waaw man man yow lay loolu. loolu. Ah, non non moom mooy sama mooy sama grand. Ah, sama xarit dama koy roy man man maa la fan léegi. bàyyi loolu loolu man maa la fan dina tam yi muy sol di ma toppandoo nii. <laughs> déet waa léegi. Ah. man maa la fan man maa la fan loolu. <laughs> fële laay wàccit ba ne dama leen di bàyyi ngeen continuer moo tax seen diggante da am na nu muy demee du ma ci xaj moom day jël jakarta sax ah. wala mu jël taxi <laughs> tey day jël jakarta wala mu jël taxi alors euh, ñaareelu fan ci burdu bi euh, euh, ci sargal waajal guddik Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ca Tiwaawoon démb nag seetaan naa burdu bi démb moom ay une heure du matin passé cinq minutes defe naa la jeex mhm. waaw dafa naa mhm. ah. waaw loolu loolu saa xam nga fi mu toll ni réew mi waaw day saf sàpp ah, Mawla moom Mawla moom. Euh, salli wa sall. waaw day fi euh, day saf sap fu ñu toll nii da nga koy yëg ci euh, ci bëti nit ñi. waaw waaw da xam ne guddi gii ñuy nekk nii guddi yi ba karaw gàmmu gi. waaw wax dëgg yàlla loo fi taataan ci ñaan rek. sa xel day dal. ndax foo dem rek ñoom loo fi taataan ci ñaan xel yi daal di dal yal na yàlla nangul ñëpp yal na ñu yàlla dolli sutura yal na ñu yàlla teel njaboot gi teel ñu sunuy société teel ñu sunuy doom. téelu boppam ba nga xam ni euh, li ñuy ragal ci musiba yeeg balaa yeeg euh, ndog-ndog yeeg xat-xat yi yëpp yàlla suñu borom euh, musal ñu ci musal ci Sénégal ak réew yi ñu taqandool ak adduna bi yëpp ah defe naa ne war na nu mën a dem élément bu fekkee élément am na ci waa régie bi ci ñoom papalay foofu ñu may ma benn élément le temps que ma am dara lu ma réglé techniquement fii ci man rek après ma ma dellu si waat ak yéen ci li nga xam ni mooy mooy mooy mooy mooy mooy plateau bi ah benn cus génn ñun gone ŋànca loolu baaxul léegi xanaa loolu sax day indi feebar xamu leen loolu cancer yu bëri yu xew léegi gone yi liir yi nappatuñu ween yi punkalu magum yi nga xam ne seen tuña ngi lang ñoom ngeen koy jox ñu koy kapaj kapaj kapaj kapaj kapaj kapaj am cancer du chien lan la waaye yow merde waaye yow merde eh, eh. xam laa wax kaw tu te prends pour kii yow loo jaay ma jënd ko yow lan moo la daal ak lan nga naan ak lan nga fóon wala loo foog ñuus la léegi laay def est-ce que nga li ma la wax ngay mel ni batan sa noonu eh? dem ba màgget ba pare di yuuxuwaate foo ko teg yow say fan compté nañ ko li nga dund ci àdduna dootoo ko dunduwaat ñëw daa jàkkaarloo xale bu ndaw naan danga koy jéem a yuuxu di ko na sa yat boobu ci yow la yem yow de xam nga ne baaba njéemee la gën ak ñing mii ndax sax am nañ fraîcheur yabaate bu bëgg ngay palpité noonu deewagoo da ngaa war a cardiaque tëdd fii xool ba xam nu ma lay rombee yabaate ak sa mbaxane bu ëpp bi kii la yeb yow yow su ma waxee ak doo sant yàlla ma boole li ma neex li ma naqari muñ ba bëgg a dee di ànd ak yow nga bëgg cee boole yeneen eh, <laughs> wax nga dëgg cim ma ngay saaga ah, yow yow laay saaga yow ma ngay saaga eh eh bu nangu fii de bu nangu fii de lii mooy lan mal civilisé. yow yow. palpité goo sax. eh bu dajji lii menuisier bi laa xaar ñëwagul nga bëgg koo dajji samay loxo. Baba Ndiéba moo ne naa ñëw wax la ko xëy ma waxal la lii damay saaga. lan Baba Ndiéba moo wax naa ñëw attaqué la yow. damay <laughs> saaga yow. Baba Ndiéba tamit moo wax naa reste sur mes ndax yaa ngi ñëw attaqué ma fekk saaga ah. saaga bi ma wax naa la ko saaga sax saagaw ma la ko dama la koo rafetal. Ah. mu ne yow yaa jël sa ween bi sama ween bi sama ween bi di ko jox ñing. sama ween man ma jox ko ñing. wala wax. kon daal man damay prostitué daal bay jël sama. ween bi prostitué dama ne yow yaa Baba Ndiémé bu la waxee taalal bi nga ci di ko def. Baba Ndiémé wax loolay moo la wax sama. yow jox ko waaw comme Baba Ndiémé moo ko nga ñëw jàkkaarloog man di defante ak man lu rëy lii bàyyi naa la sama diggante ak yow jeex na tàkk maay xool li ma neex ci koñ bi ma di ko def te doo ma mën a yow nag dinaa la xamal benn affaire bi nga boo ma bàyyee baaba ñëwee moom dama koy ñuus ba mu tëdd moom moom moom ah. dama koy ñuus ba mu tëdd moom ligg moom ko yaag baaba waaw ngay nappe waaw waaw ñëw ma la laa la wax maa jox sama diggante ak baaba ñëwee léegi ba mu puub di bañi daa naa dee yow léegi ne bu fekkee da ngaa bëgg a baaba ñëwee mais laa lay lalal ci palaat indil la ko puubi baaba ñëwee bàyyi naa la. da ngay gis bi maa ko ñeebe. bàyyi naa la. waaw xaaral xaaral ma ñeebe buubu maa ko ñeebe léegi yow xaaral xaaral maa la ñeebe keroog maa ngi lay gis xam nga gert yëpp a nuroo. waaye ñu bokk xott yi ñu tolloo xott mën a ànd. loolay dëkk. sama digganteeg Baba Ndiémé ak waa Birima Birima. xam nga gel bi ne fi keroog maa ngi lay gis ngay romb. waaw romb naa fi ba mu teg kii ba mu xaw ca ay yëngu dem. Ah. naa la nga toj fa. ah waaw ma tabax ba mu kawee. yow li ma gis ni nga fecc keroog sax gone gi daa mel ni daf daa nelaw. damay seen morom du ma seen morom gars yi nag dañ maa siñ fang. ñoom waaw dañ maa siñ fang naan dañuy concurrence ak man te xam naa booy bi ci boppam. Hmm. ngéwél la koy daaneel xam naa ni am pecc la koy daaneel. ah waaw keroog miir la ci man gars yi nag dañ may jéem a concurrencer. ñoom fi mu ne dañ lay concurrence. waaw dañ may jéem a concurrence te yow xam nga ne xajuma ci ñoom te yow xam nga ne màggatum korooj nga programme bu ne tas nga ko. Euh, man dërgan waaw sama xëy xajul ci ñii <laughs> xam nga ñoom li ñuy fecc daa géere ndax ku fay ku fay kër Baye Ablaye Diouf. ah ah Diouf na naane ndox. ah kër Baye Girital. Mbaye yaa ngi dégg. ah naane ataay kër Baye mam Ismaïla Cheikh. Cheikh waaw ah <laughs> ñu ne deeta waay nga dem kër Baye Dun Ñang reere fa man. xoolal xam ma bëgg ñu fecc Baara Mbaye man nag nag saa ay Baara Mbaye yooyu nag déglu ma wax la waaye déglu ma wax la xale bi ay yëngal ndigg yooyu la xam xoolal ay war mbiij mani waa ay lëmbal ku tar mani parce que peccum ndigg peccum suuf la gën a soxla yaa ko fi wax ni yaa fi wax so xol li ci gerte ak ñooy ànd dama ne baarambay ju du dig rek mbalax yi ànd ñii li ñuy fecc li ñuy fecc baaxul daa gone ah. demal ci Baara Mbaye loolooy cosaan bis boo ko fecc gone géey daw ànd ak kiis bi ñëw laxasu leen wuyu jox may kale ma rek. fekk What? mi ngi noonu góor gi ñu gàgg vee wàcce ngéwal central pour euh, ça sera pour bientôt incha allahu rabbi parce que production wu télé bi ñu ngi ciy waxtaan euh, bu baax ak Ndiaga Ndour pour que soleil la ma dellu si ci euh, li nga xam ni mooy ngéwal central xam naa ne bu boobaa ñoom membra nag ak ñeneen ak ñeneen ñëpp il faut que ñu ñëw ci ci production boobu mm-hmm. que ñëpp ci télé bi la muy production boobu nga xam ne incha allah léegi mu aw ci télé bi nga ci nuyu de passage euh, Cheikh Ndiaye ak Aziz xam ne ñu ngi ci préparé wu ñu ngi ci euh, scénario bi bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. membra tey nag damaa bëgg ñu waxtaan ci li nga xam ni mm-hmm. mooy euh, jigéen yi nga xam ni dañuy sëyi du nu mën a togg mën na noo tontu. Mm-hmm. du nu wan baat daal mën na tontu. Mm-hmm, mm-hmm. tayal nanu seen cet des na. balaa seen jëkkër di jot ci ñoom it. dem lu ne. ah loolu ja loolu. ba ñenn ñi. dañ leen a mujj a paagal seen bagage. delloo leen seen yaay ñenn ñi. dañ leen di defalaat formation pour ñu ñibbi. est-ce que góor ko. dina am temps wu xaar. Mhm. ba formation boobu mat. Mhm. wala day mujj a takk keneen ci gannaawam. waaw léegi ça. waaw xam nga man euh, fi may euh, duggee foofu mooy. waaw da ngaa commencé ca euh, li ngeen fi lim lépp. waaw bu ko góor bu ko jigéen amulee. waaw defet la ci moom. muy lan ndax li gën a métti ci àddina mooy am jabar ju mënta togg. loolu bokk na ci li gën a métti. mais nag ndax. xale yu jigéen yaa ngi fi mënuñu togg. dañuy jënd lekk ci dañuy jënd lekk. Ah, wala ñu commandé léegi commandé yàq moom laa lay limal. waaw moom laa lay limal. waaw parce que boo gisee mën a la li gën a métti mooy am jabar ju mënta togg. waaw loolu mooy que ne euh, doo ñemee invité kenn. ah mais commandé nag. waaw dañuy defal ndànk xam li gën a neex mooy nga nga euh, am soxna soo xamante ne dafa man a togg saa. waaw boo doon nekk gune. waaw lay jàngal togg ci ta euh, dekkali reer. waaw. ci la mag ñi daan ah, ah, jàngale seen doom ju jigéen. dekkali dekkali reer. waaw mooy ah, bu ñu toggee añ ba pare. Mm. la nga xamante ne ni tey jii moo des a cin la. waaw moom la ñuy ñuluk def ko mbaxal moo xamante ne ni tey boo doon gune ba toll ci njànk mm. danaa la demal nga dekkali ji reer. waaw ñu bëri ci lañ jànge togg hmm. ndax doom ji jigéen njàngaanewul ndeyam mooy royukaayam ca lay xool boo yoree sa doom ji jigéen hmm. da war a xëcc jigéen a xew ci a est-ce que est-ce que léegi est-ce que léegi euh, waajur yi teelu ñoo yi à di wuti xaalis wala di nekk ci yeneen préoccupation ba nga xam ne duñ leen di sax waajur yi ñu ngi togg bay tala togg jël seen doom yi di leen jàngal togg waaw kilifteef moo amoon ci réew mi te amatul xam nga kilifteef gi amoon ci kër yi. waaw moo wàññeeku. waaw ndax li tax mu wàññeeku mooy que bu njëkkoon. Hmm. yow jigéen sañoo génn ci sa kër di dem di sëy itam mokkaloo ah, liggéeyab kër. waaw parce que ak set. waaw lan leen njëkk jàngal ba pare. waaw jàngal la li nga xamante ne ni tey jii mooy euh, mooy sa biir néegub sëy. waaw parce que am na góor ñoo xam ne bu ñu wàccee duñ bëgg a dem seeni kër. waaw lu tax duñ fa nam ma bu ñu demee duñ fa fekk jàmm. Hmm. ah kay wax jàmm ji ci lan la waaw wax ju waaw jàmm li ci jiitu mooy wax ju neex waaw wax ju neex xam nga sa jëkkër wàcc nga ah, ah, tànk ndox mu sedd jox ko ko ne ko massa coono ba sonno loolu coono bi nekkoon ci yaramam day wàcc waaw waaye sa jëkkër wàcc naanagul attaaya añagul defagul dara ñëw nga ne ko diw nee na ma lii diw nee na ma la waaye duma ci boolee wax la nga njëkk a def ci boppam moom dalay jépp moom moom moom kër gi doo doo àddu la na ma moom am na ñoo xamante ne seeni jabar ah, du lu na ma seeni soxna bu nu wàccee nu embouteillage bi gën a ah, ah, ah, kii dal moo leen gënal parce que duñ bëgg gaaw a àgg seen i kër góor da nga koy jàmmal góor moo xale ñoo yem boo ko naxee rek lu ne ci poosam mën nga kaa jël waaye am sa soxna man la togg seetul loolu loolu loolu ak dépasse ni mu seet Seydina waaw cëp gis nga da nga laal fu garaaw fu am solo waaw mooy li maam wax rek lépp rek saa dama ko daal mooy éducation de base moo amatul waa ndax boo xoolee bu njëkk ba xale day jàngi bu wàccee maam raa ba ñëw rek yaay ji koy woo mu ñëw ci waañ bi toog dëbb lay njëkk jàng. très bien ak xol li. waaw raxas wan ko ni ñuy raxasee lu jëm. waaw loolu ko doon jàngal ba nga mën raxas lu jëm lu set. surtout dimanche yi. waaw waaw raxas lu jëm rek daan xam ne mënuñu ko. waaw bu ñu paree ñu jàngal dañuy raxasee lu jëm ba mu kii ñu paree jàngal la waas. si waas bi ngay toog doo bougé de. yow dañ lay wan ne affaire bi lépp baa aas ngay xam lu ñuy daw xasee la jub lu ñuy waasee lu ñuy dëbbee nokk suñuy defee lépp mhm. ñu dem ba ci biir nag commencé la jàngal nan la ñuy nga dem ba mën dekkali jàngal la ñuy sóoree waaw xam kooku dañ ko jàngal mhm. la ko jàng très xam kooku léegi moom benn lekk bi togg bi am na hygiène mhm. xam ne étape étape li waxtu bu ne lan ciy def waaye di sañoo ci génn booy togg léegi dem ci monde digital da ngay gis ne yaayam day togg yow sa yaay ngi togg ci waañ ba moom ne moom moom ci salle bi yaa ngi sa nekk yor sa téléphone ah. day jékki-jékki ne la ma koy xoolal ma cin ba mm-hmm. mais léegi mais mais mais mais léegi am na ñuy xool ci seen portable. di togg ah. waaw déedéet togg gi ngay xool ci téléphone. waaw ak togg gi nga xam ne dañ la dañ la cee jàngal. waaw mu doon loo xamante ne dañ la kaa jàngal. bi nga am na ñuy togg teggu téléphone de. am ñoo xamante ne gis nga mbaxal la mbaxal bu jëkkoon mbaxal. mbaxal mii ngay gis. waaw mbaxal dañ ci daan dekkali reer euh, euh, booba yabay mërëb bi am na xam nga yabay amatul. gée euh, réew mi amatul aw jën amatul. Mhm. est-ce que xam nga ne saa boobu Musaana dem ci dëkk yi la lébu mhm. da noonu am na daan période période boo xam ne bu set musaana toll. Ah. lakkum jën mii boo ci lakkoo ba pare añ bi da daan pare daawoo ah, ah, daawoo daawoo bëgg ceeb. waaw booba jën yu mel mel na noo xam ne. est-ce que géej gi neexati na noonu nawet moom daal aw jën amatul. waaw mool bu xam amatul jigéen ñi duñu mën a togg. waaw déedéet xam nga lan mooy problème. waaw même bu fekkee ne tey jii lii ñu nekk nii ci réew mi nii. waaw li li tax mu gën a métti mooy mool yi léegi. waaw. danoo gisatul jën wu nu jàpp mën nga andi seen kër. fu njël yi dem. kenn da xam yow bu fekkee ne dem nga bay dem ay Guinée Guinée. waaw waaw du wutiw jën ay Casamance. kenn da kaa xam est-ce que du mëseur yi ñoo leen tiital ñu daw. déedéet waaw. bato yi ne ci ah, ci ci géej gi te mool yi mënuñu si dara. waaw bato yi. bato yee bay mooy yi fi ñu napp dañuy guux. est ce que est ce que xam nga benn affaire bu ni ñuy taa ah, ni ñuy napp yu jën. waaw dafa ah, waaw ñoom engrais la ñuy jëlee. waaw muuf la ñuy def. waaw waaw duñ fa waaw mooy mbaal diri. bu njëkkoon. Euh, gis nga dafa am ay xeeti jën yoo xam ne gis nga buun bi ngay gis nii. luy buun los los yi ngay dégg. waaw los waaw. kenn daaw ko lekk lu tax res bi leen daan jël sànni jàpp wa ca xaj kenn da kaa bëggul kallangaar da nga ko daan ay yarankaa ki ay ay yërëde yi hmm. da nga daan gis ci pot booba ñun bëgguñu ko woon da daan teer nii ay firinde mbara bii ay deux cent la daan jar benn cent franc benn juróom sax jar nag mbara bii na mbara mbara waaye mooy mbara bii na waaw waaw booba da ngay mbaal ab mbara waaw da ngay dem ba dagga mbaal mi pour bëgg jën wi génn ñun sunu kër da nga daan taxaw nii gis ay ay xonqe yoo xamante ne da ngay taxaw nii luy xonqe aw jën lay doon aw jën xam nga bu baree. moom la ñuy féerir. déedéet day xonq bu bu bëri euh, jënu bari. naax waaw naax lay doon bu naaxee. waaw mooy waral ñu naan laa aw xonqee nga dale wala ma nga ñu naan la ma nga dalee ras. waaw boobu yooyu bi ndool bu rëy xamatul aw ras. bu rëy ras xamatu xam ah! la. firnde xamatul xamatul ab ñun la. gis la ab jën yooyu bu ne dañ kaa xam. parce que danoo kaa gisatul. waaw léegi lu mu amul est-ce que togg dina neexati. waaw léegi nag loolu tax dëkk bi miti. waaw ñun suñuy bàyyi dañ leen daan fekk fii di leen yóbbu ci ah, ci yi dañ daan bañ. waaw bëgguñu woon liggéeyub usine. waaw boobu na ah, mbay mi dox na. mais maam daal xam nga man dafa am dafa am am xet gu ma ceeb daan xeeñ. xeeñatul mais xet boobu man man. dafay nekk sama xel ba léegi au temps bi ma nekkee xale. mais xet googu gisatuma ko. waaw foo koy gisee am la ko amatul. am la ko boo boo amatul booy gisati loolu boo ko tekk li ren am boo euh, di keng bool keng. Euh, bu fekkoon li ma lay wax nii bu njëkkoon. mu xëyee ba tàngal la. ah maam naan sa xol bi jeex na de ni nga koy waxee nii. sama xol bi jeex na ak ceeb léegi ni mu gaawee forox. bokk na ci li mu gën a métti. a ceeb ni a métti. ah ab ceeb daawul forox. booba li daan fumier bokkul ak li fii fumier léegi. waaw mais est du bouillon yi ñu ciy def. waaw moo tax mu gaaw a foro ab ceeb léegi mënatul dem 6 heures boo tijjee bool bi ah, day changé. bu njëkkoon bu nu ah, bu bu nu jëlee xóoñ ji def ko ci digg euh, euh, digg ndab bi. waaw jël suji dóor ko ci kawam ñeex mi ne woon ci suji wàcc mu bexi booba xoron sa daa réew mi yàq mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii xoolal mbal diri. lii lii lii kër. lii fan la moo liy jàppee jën lii. xoolal xoolal xoolal la mbaal may lang. fan la moo liy jàppee jën. fan la mbaal ma li ngay gis nii. waaw génn wàll gi lu ci bëri ñuy diri. bëgguñu ko gis nga ah yi nii ñu topp. oh tibb gis nga lii lii fan la moo liy jëm. tibb na fan la moo liy jëm fan. lii yow bopp bu njëkkoon. Oh. bu njëkkoon xam nga ñaata ngay sol essence. waaw bu njëkkoon waaw ay bidon mille hmm. moo amoon. waaw léegi ay 35000 mooy sol bidon bi di nga sol ay ay essence 400000. waaw dem te da ngay dem rek mën ngaa dem am mën ngaa dem ah, doo am boo boo boo boo jàppul jën ñaari yoon boo ko kaayaa. te boo duggee ci frontière jàmbur ay ay ay ay Mauritanie. wala Guinée wala yooyu dañ lay jàpp. dañ lay jàpp. waaw moo waral ñuy sonn ci ay Mauritanie nii. wala ngay dem ay Guinée yooyu. waaw parce que il faut ñu dem foofu. gaal boo xamante ne nii day yem ay 80 personnes yoo xamante ne ñoom seen nar rek lañ mën a am. bu nu jàppee jën kese la ñuy am bokk kenn mooy moom gaal gi mais 80 personnes dañuy nekk ci biir gaal gi bu gaal gi. mais gaal buy jël 80 personnes. waaw mais da am parce que bu fekkee ne am na 50 personnes yoo xam ne ñu ngi ci gaal gi. am na ñoo xamante ne ñi ci kaw la ñuy nekk dañuy am dañuy naru. parce que bu fekkee mbaal mi yàqu na ak yooyu ñoom ñoo ñoo koy defar. moo tax ma ma ma ma ma golobal la lépp. ah da ngaa golobal mais biir gaal gi ci biir géej gi 80 personnes. du ci nekk du ci nekk mais dina dina am ay ay maanaam li li nga xamante ne nii ñoo ñoo. waaw ñu ngi lay ziar baax. delloo ziar. alhamdulilah. ñi nga xamante ne ni tey jii ño ñëwal si. ci ngeen bokk. waaw amul benn problème. waaw yaa ngi dégg. waaw li nga xamante ne ni tey jii ñoo nekk ci gaal. waaw ñi nga xam ne ñoo ñoo yor gaal gi matériel boo xoolee ñëpp. ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo. waaw non non nous revenons à nos moutons. waaw. parce que parce que gis nga. waaw nga daaneel foofu gaaw gi après damay ñëw. parce que dañoo nekk ci benn tempo boo xam ni. Mhm. dañ ma koo dee. depuis semaine bi yëpp mais bugguma ko wax mais comme que tey invité ñëwul. ñu profité wax ci. jigéen ak këram. jigéen ak jëkkër jigéen ak ñuy téye mu daaneel fii ci waaw. waaw mais boo gisee ma lay daaneel foofu mooy que ne. waaw il faut ñu euh, gëstuwaat mool yi. waaw parce que yi li nekk seen ginnaaw danoo bari ah mais bi nguur bees gi yéegee. gis naa ñuy filmé ni affaire bi léegi neex na. déedéet amul ñun suñu kër. loolu film man sama kër man bu ma taxawee. waaw bu ma yéegee ci kaw bu ma jëlee xeer sànni day doon ci ndox mi. waaw man maa lay wax maay wax ak yow. waaw man ci taatu tefes gi laa dëkk. waaw aw jën laa la demoo ca ndox ma. non man dama ne ma ci man dem géej dem naa fa foo ci géej dem naa fa. waaw man heure bu ne tëb naa ko ci biir géej. parce que ñaata dem na ci géej ba taay. non dama ne la 3 heures du matin. 4 heures boo xalaat. tëb naa ko ci biir géej waaw man dama daan tëb ànd ak booy. Hmm. li may de wax nii mool yi ñu may dégg. waaw ànd ak booy mooy ñu ñu guddi. Hmm. nga ànd ak booy bi ñu bàyyi la fii. dem wëri pour jàpp jën. bàyyi la fi ngay bàcc pour jën bi bañ a génn mbaal mi. ñun def nañ ko ba tay ngay bàcc ndox mi. waa ngay bàcc nii. nan nga fay bàccee. non da ngay dóor say loxo nii. bu ko defee loolu mbaa doo dóor ba say mbagg wàcc. waaw non non xam nga jën euh, bu dee guddi la. waaw euh, mbeex mi day sereen. waaw day léegi boo dóoree bu déggee bur yi hmm. day daw dugg dem song bi euh, digg mbaal mi waaw loolu ñun def nañ ko ba tey waaw bu ñuy wax ci géej hmm. dafa jaar ci géej ñun bi ñuy dem géej hmm. gin daan gis jën yoo xamante ne nii xale yi xamuñu ko waaw parce que gisatuñ ko waaw ba sa boo gisee may wax lii mooy nga ne dama bëgg ñu gestu ñi nga xam ne ñooy mool yi fi mu toll ñi gën a sonn ci àddina mool yi la man ñi gën a sonn géej gi amatul dara dara war a waraan kenn da xalaat mun lekk ci àddina wala nga koy jënd wara waraan fukk yi dërëm la daan jar. wara waraan tuure. wara ngay gis nii. Hmm. léegi géej amatul dara loo xamante ne lu ñuy sànni. wara waraan lu muy jar. wara waraan fi mu toll kilo bi 1000 francs lay jar. moom laa mujjee dégg ci booy yi kilo 1000 francs. kalamaar du moom lañ daan tuur ci yoonu mbuur bi nii mu dem ba nëb. kenn soxlawu la woon ko woon. mais après mais léegi dafa cher la dégg naa. da kaa mën a ah, gis xanaa looy gis ngay ngay kii kenn maa maatu kaa gis. saa nan gis su mool yi sonn nan barki Seydina Limaamu ku gën a sonn mool yi amul ci réew mi li ma lay wax nii leer laa dama gis vidéo ba nguur gi di soo a ñëw ma gis ay mool ñuy filmer naan yéex nañu ñëw nax léegi géej gi am na jën am na wane jën yi saa gis nga vidéo boobu loolu sukkure man loolu dama a comprendre quoi amul loolu amul ñun si géej la ndëkk ah, jën woowu gisuma ko fenn man man du kayaar du faas booy du fenn foo xamante ne nii ñun d'accord loolu mën a indi fo phénomène wu jigéen ñi mën a marché neexatul parce que léegi dangay ngay jël 15000 francs sax jox ko sa jabar pour mu pour mu togg pour mu togg ci añak reer mais te day ngay day am ceeb day am dëwlin tamaate dafay nekk mu war ci jënd rek jën wala yàpp wala yi daf lay wax ni ça ceeb bu normal dix mille waa waaw dolli foo leen dolliwul ñu dañuy dem ci marché bi waxtu rek dañuy dem ba marché di waxtu di sànni loxo duñ xam lu ni dugg cinquante mille francs du la du du du la waaw non xam nga la ma waral loolu parce que ah, ndugg mu sew nii rek léegi mën nga cee jaay junni waaw mu togg lu toj addina comme nga mën nga jox jigéen cinquante mille. waaw du togg a lekk togg togg loolu loolu ci loxo la a wax. dugg ci beneen gaam. waa waa togg ci loolu ci loxo la. waaw dafa am jigéen ñoo xam ne ndox sax buñ ko baxalee jox la kap boo naanee da naan ndox mi bokkul ak ndox mi ma naanoon démb loolu ci ñoom la. dafa am jigéen ñoo xam ne boo demoon ci marché ba yendal fa la fa nekk lépp nga yenn ko def ko ci kab yoo andi buñ toggee day lewet mënuñu boo mënul mënoo togg ci loxo la dan la koy jàngal bi ngay doon gune am na ñoo xam ne dañuy liir di am na ñoo xamante ne nii dañuy gëmm di togg parce que togg dañ leen kaa jàngal bi ñu doon ay gune gis nga boo ñëwee caare moo yóbbu la ci ay gune yu ndaw yoo xamante ne nii du nu mat sax 15 ans. toggal sax avant seen jëkkër di wàcc am na ñoo man ñoo ñànkatan ñànkatan bi am na jigéen ñu ko mën a parce que Seydina Limaamu na jigéen ñu mënta ñànk wax mënuñu ko eh, sa dogu xamante xam loo xam ne mooy sànq lu mu wax lépp loo gis li ma daan wax rek fi mu daaneele mu éducation de base dañ la koy jàngal loo doonu nangam doo doon sëriñam mm-hmm. saa gis nga tey ji Sénégal fa garaaw nag ba si maa koy jégul si yenn soxna yi ñu si bëri ñun góor ñi ñooy def suñu problème ñooy indi suñu bopp problème ñu takkuñu dañuy jënd jabar saa takk ak jënd bokkul na bu njëkk ba dañ naan soxna si da koy gis mu nekk xale mën a jàng lool toog ci këram mooy sa théâtre ba nga joué woon Sénégalais yëpp dégg ba ñuy soog a dégg loolu toogal toogal sa pooju ndey xam nga dafa wax boo xam ne wax bu garaaw la message la mooy jigéen bu toogee ci pooju ndeyam mooy dañ koy jàngal ko mhm. nu ñuy toggee ni ñuy liggéeyee ni ñuy defee lépp ba nga xam ne yow boo nekkee góor sax dëkk ci koñ bi sa rêve sa rêve mooy kii saa dama koy takk nga xam naa ne kii jàngal nañ ko yar ko yee ko ok léegi ñu jël ci tontu mhm. waaw tontu waaw tontu tontu sa jëkkër waa tontu loolu la mu ngi dépendre ci euh, euh, naka yaayam yere waaw bu fekkee da ngaa nekk ci kër. mais nag góor ñi góor ñi ñëw ak seen naqari deret ah. waaw noonu léeg-léeg ci kër. waaw sa yaay mu yore ak ni mu nekkee ak sa papa. waaw di nga noonu ngay ak sa ak sa ak sa ak ki nga xamante ne nii tey jii. waaw mooy sa am na ñoo xam ne seen papa dafa teey dal. du wax du def dara. waaw seen yaay ñu dem sëyi mën a tontu. waaw yaay ju baax dafa am solo. waaw yaay ju baax. waaw moo noppal doom. waaw. Euh, bëri na ñoo xamante ne ni tey jii dañuy dañuy euh, aw foo xamante ne ni seen yaay moo ci seen yaay la ñuy xool. waaw moo waral chaque jour jigéen ak lu ki war a gën a jigéen. waaw mooy waajuram mu nañ ci kaawaa bu jigéen ba taay de lexi jigéen. wàcc nañ ko am ñoo xam ne gis nga ñaari jigéen yi moom. Euh, na leen ko moytu. jigéen ju am fit. Hmm. ak jigéen ju gaaw tontu. Hmm. ak jigéen ju rëy. Hmm. kooku góor gu leen dëgmal doo am bànneex si ñoom. ndax bu fekkee ne yow nan nga mën a décortiquer loolu lépp. waaw li tax ma mën kaa décortiquer mooy. non nan nan nga koy décortiquer. jigéen waaw mooy jigéen ju jigéen du mën a tontu. waaw waaw. waaw parce que boo nekkee ak jigéen. waaw yow avant nga koy takk. waaw li déggoo ñu ne euh, sëy la ka tas nuyoo woon na si njëlbeen. dañ daa fay ah kay ànduma ci. waaw de da ngay wax lu tax ci. waaw lan moo waral lool ànduma ci. waaw lan moo waral lool. xanaa xamoo jigéen moo gën a cachotière ci àddina. ñoo dàq nëbbatu ci àddina waaw moo tax li nga nekk ak jigéen. Mhm. billaahi ngay génn ak moom quatre ans cinq ans dix ans quinze ans mu yaakaar ci yow takk. Mhm. wala mu xam ni objectif clair moo la tax a jóg. caay caayam mu nëbb la ko. nëbb ba nga takk ko. wane ko ba mu ni faax teg calcul mu ni ko tef mhm. taal. waaw dafa am yu am solo yoo maa la waaw dëgg la li nga wax dëgg la mais dafa am jigéen dañoo mën a nëbbatu ah. waaw dafa am am solo yoo xam ne boo ko xësee xam ci moom. ci ma ko xësee xam ci moom. waaw mooy jigéen bu amee yar. waaw am diine ba pare dal. waaw leneen li yëpp. du neex du du naxaree ko. waaw baa baa ma dugal wili. baa ma dugal wili na wili ñëw. baa ma dugal wili ak ak ak ak ak. waaw ah dañuy ay jaam lañ après dañuy àggale ay jaam lañ defal lii taxaw si xool lii lii lan la nii lii lan la waaw lii lan la nii yéen lii lan la yéen. waaw kii du taxaw benn place muy. ah wii li aar la. wii aar ah wii aar. maa defoon sa bopp la quoi waaw lan la lan la. waaw lu xew ba ngeen indi sama. waaw yow lu tax ma ñëw sa plateau ñëw en direct nii. waaw dama ñëw pour kalaame nag sénégalais yi. kalaame nag àdduna mu ñëw def benn affaire ba nga xamante ne nii ñu wax ci man après ñu jeex ñu lay woo mën nañu jot. lan ngeen wax ba ma jot. non fu mu nekk nii yow yaa ñu dimbali ci lu bari. waxal ci micro bi ci kaw. non wax ci micro bi Maodo teel ma ñu dimbali ñu am programme boo xam te ne balaa ko taxawal mu tudd parc du rire. ñu ci communication woo ba kilifa gi nga xamante ne mooy suñu ministre tutelle. mu ñëw ci bis ba. mais après loolu noonu dafa am loo xamante ne yow. le minimum war nga ko mën a jégal ñu ñëw toog ak yow ñu waxtaan ak yow. ñu lay woo. balla ne ma daje ngeen tournage Thiès muy ñu toog ñu waxtaan parce que dafa am loo xamante ne dañ ko defoon ak ak ak ak yàqamti. waaw léegi nag loolu bu rombee. yoon la nga xam li ñu ci topp li ci topp li ci parce que ñun d'habitude dañoo am loo xamante ne mooy plan boo xamante ne de A à la ci annuel bi. waaw déet man dama lay laaj. waaw kasak bi yéen bokk ngeen. kasak waaw. kasak waaw. collectif des artistes des des collectif des acteurs et actrices du Sénégal. collectif. waaw. non dafa mel ni man bokk ma ci de. képp kuy théâtre ci nga bokk mi ngi nii. def nañu assemblée général ak. Mhm. def ay formulaire ak def yëpp mu ngi nii kasak. waaw kon ci groupe waaw moom lañ ma dugal ci groupe am nañu am na am na plus de am na plus de cinq cent presque six cent membres. Ah, moom dañ ko war a biral kon ci kaw a kaw mi ngi nii kasak mi ngi nii formulaire d'adhésion baa ngi nii. kasak mi ngi nii. Joséphine Mbuub mooy mooy suñu présidente. Joséphine waaw loolu da taxawal nañ ko ca Magic Land yàgg na. et puis euh, euh, euh, def nañu assemblée général bi. def def règlement intérieur ak yooyu mais groupe bi ci nga bokk yow man man nag dañ maa jiitaloon ca bureau ba ak ci yëfu bëgg président ma ne leen. sama jot. Mhm. mayu ma ko te bëgguma jiite loo xam ni. Mhm. léeg-léeg nga tukki léeg-léeg nga muy am suuxa ñu lay jàm baaraamu tuuma mais mën naa mm-hmm. nekk ci euh, euh, euh, kii yi nu mu tudd ñii ñi nga xam ne daal na ñuy joxe xalaat yi wàllu xalaat bi nga waaw waaw mais ci nga bokk rek waaw ci kon jeex na papa lépp loo xam ne ci nga bokk waaw dañ ciy bokk par force xamul tax leen bu ngeen fëggee dafa am ñoo xam buntu ba tëju woo leen ma ma ma ma raay buntu ba mu ubbeeku man foofa laa féete ci café waaw léegi lu ngeen xewle waaw dañoo xewle huit heures. huit heures waaw nuyoo boo de moom moo xaw a jaaxal. waaw salaamaaleykum mais euh, kii la jël leen ma en direct. waaw ñaa ngi en direct nii. zoom la zoom la. ah ñu zoom la. yow kon nuyoo la. waaw ñu ngi siyaare ñëpp. tey <laughs> euh, ñëpp di wax ni vraiment kontaan nañu ci ci ci ci ñëw fii ci sa émission comme d'habitude. waaw euh, ñuy bëgg képp ki nga xamante ne mu ngi seetaan fii la. waaw ñu xam ni que ni seen doom yi yegsi nañ ci seen kër ak seen i waaw seen i xaritu papa yeeg seen papa yi ñëpp ñu ngi fii. kon boog ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni man la Wili Wañanga maa ngi charré. mi ngi nii <laughs> collectif des acteurs et actrices. waaw sénégalais sénégalais. waaw de l'audiovisuel et du cinéma cinéma waay. loo fi ci 552 membres. membres waay groupe baa ngi nii lépp lu xew ci wàllu aar fii ci Sénégal. ak yépp fii lañ koy waxtaanee kenn dootul soofantal artiste. kenn dootuñu ki yépp nag ñi ngi ci. artiste bi mën mën a mën a xiif lekk mën a feejar feebar faju mën a am cachet yu baax ñuy xool ñuy xool ndax deku tegu na ci yoon ndax suivre artiste mu yoolu yow yow mu ci waa lan la eh, ah! Ah, waaw waaw Sénégal yi léegi ñu jigéen ñi. foree ji ñuy ree lan lu leen koy def. déedéet man li ma jaaxal sax mooy ñoom fii nu ko lii lan ah xottiku nga fu ne de. waaw da ba pare frotta yi e nii sol man ba bëgg ba. waaw lii lii lii waaw lii. moom fan la fi kii. waaw léegi ji mu xotteeku lii lii lan la. man day gu ne jaaxal na. lii bu njëkkoon de ah nii la mel na rafet de mel ni mën mën de. ah <laughs> man de ah, ah ci kii bokkoo ci. daa ne daa mel ni taxawaay boobu la. taxawaay lu mu tudd. taxawaay gulu gulu gulu nga taxaw de. non man dama def loolu. yow boo ma xoolee. xam nga ci gulu gulu ñëw nga daal def fay lu ne. en tout cas gisuñu la de. yàlla na lii lëndëm na. yow daal la takka nga say feet. ah eh kii guluwul. wal jéen wu xotteeku. ah baax na. dagg sa bopp. baax na an mel ni sama wos. ah ba. nga taxaw naan bulu bulu bulu daj. takk sa siin. waaw soxna say fer dama lay ko. waa aca ñu loolu. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àddina. lii lan la nii. Eh, eh, eh, eh kii bokkul ci gulu non bokkul ci gulu gulu maa ngi ñëw bàyyi leen ko mu nuyoo eh, bàyyi leen ko mu nuyoo dina wax ne kontaan nañ bu baax ndax euh, yombul ñu fekk la ngay def sa émission ñu xuus jàll nga ñu non émission bi émission vraiment acteur comédien waaye xam nga am na loo xamante ne dañ koy émission ñëpp la ci émission de divertissement la waate waxtaan ak waxtaan yéen ngeen mën ngeen a bañ am sax kii ngeen ñëw ci émission bi ngeen ñëw waaw nag lépp la ñuy waxtaanee moo taxoon nag suñu teewaay ah ñun suñu lépp lii moo ñor waaye léegi lépp lu jëm ci lépp lu jëm ci aar dama lay wax lépp lépp mooy lépp ah léegi lépp lépp bi maanaam mooy lépp lu jëm ci aar léegi. waaw très bien. ak yeneen sax ñu wax ngaa ngi dégg ñuy wax waxu jigéen yow. loolu toog par exemple. ah <laughs> déedéet bu ah, wax lool de. ñëw àggaleel. waaw loolu yaa ngi wax. lu am solo. Ah, parce que ñoom ñii dafa mel ni jékkootuñ ah, togg. waaw parce que ñun chaque jour dañuy dañuy dañuy placé foofu. bu ñu xoolee ñun fecckat dañ naan mu ñu togg. ah yow fecckat nga. yow doo gisoo ki ni daanoo lay liggéey. déglu ma wax la benn déglu ma wax la benn. kii mooy moom la. taala. xamoo ci dara. maa ngi yow yem. ay feetikat yi man xanaa xamoo ay yenn ñun ñi ñuy tudd ci tiktok yeeg affaire dama leen kii nii rek. man dama leen xam. miinu ma le. ah maa ngi yow yem. maa ngi sérieux parce Euh, euh, damay dégg rek parce que man ñu bëri du ma leen seetaan de duma leen seetaan du ma déglu waa waaw daf may xaw ñàkk kii nii damay téye naa ni fa rek fa rek waaw ma lee bu ma gisee maam nag seetaan ko déglu ko yow dag may dajji léeg-léeg ma gis wiili dajji ko mais nga baal ma nag looy fecc mbalax wala arène bi wala wala wala lan dangay fecc lépp kii xanaa amu kilimam lan bi petit gàlle ban eh, yow yaa ko parce que da ngay ànd ak moom rek waaw waaw déglu li la wax rek oh, waxal eh, xam nga lan ngeen a xamul nuyoom bi àggagul ba léegi. waaw aga demal dema demal. demal wala nga dem sa ngaam rëy na demal wala ma wàcc la sa wax daa bari trop waxal taxawal fi. noo nuyu sa papa ak sa yaay. déedéet baax na waxal. Ah. loolu lan lan xew la ci pecc mi. déedéet pecc mi. moom bu yaboo ngeen jël ko teg ko ne Sonkoog Jomaay waxuñu ci lu ci jëm. pecc meeg yooyu ak théâtre beeg làmb ji. waaw boobu moom dama lay wax rek. ata waxal. léegi wax ko ah acca acca acca da am lu ngeen xew la noo waxal ba pare yow qu'est-ce yow noo tudd. Fat Sarr danseuse nga depuis combien d'années ngay fecc. yàgg na yow 15 ans. yow 15 ans ku ko dindi ci say at ñaataan nga war a yow xanaa da ngaa judd rek bàkkar ñe. bon bon yaa sol lan. yaa sol lan nii ah yaa ne nii ci digg bi yaa ne nii ci digg bi bii li ngay fecc nii lan la nii wayu kan la ah ndaxte sama doom la ndaxte sama doom la ah ndaxte nekk ne très bien très bien yaa sol culotte bu rouge bi hey Sénégal Sénégal de Sénégal de xonq na cur kenn mënu koo lijjanti kenn waaw ñëwal waaw 15 ans yaa ngi fecc kan moo la jàngal fecc. ah man dama judd rek fecc sa yaay mooy kan. Ndey Jaw. Ndey Jaw. ma Jaw xool. fecckat la woon sa yaay. sama waaw xam naa Umu saw xam naa Ndey Gay xam naa Ayda Dada. ñoo doon ànd. waaw waaw ñooñu sama ñooñu samay fils lañ bi may soog a dugg si Dakar ñooñu bokk nañ ci ñi ma teeru ñoom Ndey Gay. ndeysaan ñoom ay dadaa ay umu saw waaye samay fils lañ ak kële doomu moor ba bi moor ba comédien am na doomam bu jigéen bu daan fecc lu mu tuddati woon ah voyage wala mu war a màggat ak yooyu rek ah, waaw wala mu war a màggat ak yooyu toog rek di traité waaw waaw waaw léegi sa yaay moo ci kan nday jaw nday jaw mhm. fan la dëkkoon Pikine très bien après nga juddu mais sa papa fecc lool. nday daw. yaag sa yaay feccandoo ngeen. yaayey fecc. ah yaayey fecc bu fekkee ne feccandoo nga ak maa ngi xaar ba kenn bàyyi loola fecc maa ngi xaar ba kenn ne la bàyyil fecc loolu lay xaar. ah yaayey fecc bon alors. alors eh. euh, alors non non euh, alors. fecc yi yan difficulté ngeen ciy rencontré fi mu toll nii. waaw ah, bari na nag vraiment. bari na difficulté yi bari parce que yombul. ak euh, âge bi ñu toll nii. day métti trop. jigéen mhm. ko laaj ko sax. amagu ko amagu ko bi mu amee bi ans la fecc. bi mu amee 10 ans la fecc. teel a sonal ñëpp waaye sant yàlla. Mhm. ah mais ñoom est diibal nañ ko nag. ñenn sama morom mi. Hmm. sama morom mi non non non de parler du sérieux uh-huh. fan nga defee ne fan la kale. fi mu kale mooy Fatou Sarr Fatou Sarr chaque am Fatou Sarr gis ne daal dañ laa ŋànk. waaw billaay. loolu tax ñu ŋànk la. qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu as fait. est-ce que du mën bi rek. ah yaa leen dàq a fecc. Ah, ah, la ñu wax de. <laughs> mais kii li muy wax nag kii li muy wax euh, doy na waar ah <laughs> ñu góor ñee la ko def wala ñu jigéen ñi la. xaw ma ci nag ñoom kan la ci daal entretenir. mais daal yow di nga jot daal di dégg ay nouvelle ay affaire daal ay wax. Ah, mais du garaaw de. mais est-ce que di nga xam ñiy wax ñan. déedéet bon alors écoute je vais te dire quelque chose. Uh-huh. nit. lu muy def ci àddina. Uh-huh. day am wax. dëgg xeer sax boo ko doon for buntu cosaan. di ko def ci ay bool. xeer yi di jar. il faut que mu am ñu ci wax wut luñ la contraîner est-ce que xeer rek lay jaay xeer yi muy jël moomu ko lu tax mu koy for te xeer yi ñëpp koy romb fii kenn foru ko. Uh-huh. kër boo ci nekkee duus ba ca nga bokk boo fay dugg lu bari ñu xam ne duus bi dugg yi fay dugg arrangé na la sax ñu wut nan lañ la fexee ba dootoo ci dugg nombre de fois yooyu yëpp aloor mënoo nekk ci àddina nekk ci aar wala nekk ci li ngay toog ay nit te kenn du la tudd parce que saa ay morom nekk nañ ci te kenn tudd leen ba ba tax na yooyu bu ko keer bul faale yooyu bul déglu parce que tant que tu yaa ngi yaa ngi yaa ngi stagné yaa ngi dellu gannaaw yow fexeel ak li ngay def parce que sa ay moroom feccoon nañ fi dàq laa fecc ñu leen di tudd sa ay moroomu journaliste nekkoon nañ fi ay dàq def revue de presque ci àddina am na ay artistes comédiens yu fi nekkoon dàqoon na théâtre après saa neex ñëw après sa neex tamit ñeneen dàq nañ koo théâtre fi mu toll nii ak ñeneen loolu àddina mooy ànd mooy moo demee noonu ay footballeur ay bokkaande yàlla na ko yàlla yërëm ay ñi ngi ne ay El Hadj Diouf après ay Sadio maana ñëw après da ngay gis ñe leen nay ñëw àddina demee noonu waaw Sénégal ndaa naan dañ dañ koy gaaw a bàyyi te buñ ko bàyyee Sénégal waaw waaw man ah, loolu jaaxal na ma trop da ngay gis ñoo xam ne dañoo man lool ñu ñu te te te kenn ñu bàyyi leen quoi te ñooñ dañoo man bala ngaa xam ne dañoo man démb rek dal nañu bi ñuy ñibbi ñuy déglu euh, alimentaire ma ne la kii ni mu mën a woyee ñun ñi bàyyi nañ ci xel parce que il fallait que ñu. Sénégal dañoo gaaw a génn li. waaw dañ léegi ah, Sénégal day takk xar xar. ci ci day takk xar ci këram sax. Mhm. xar mi soof ko. waaw da koy mu am envie rey ko noonu rek. da ko dara bu xar mi du ko def dara. dañuy bëgg rek rey la. Sénégalais day am yére. ah man yére bi bees na ba léegi kii na mën na ko solo ak yëpp mu jékki-jékki rek yére bi sàppi ko. waaw mën na ko sama yére daf maa sàpp. waaw ñoom da doyal dañuy doyal ci yow waaw léegi nag xaaral xaaral rek j'ai deux bu ma koy tëjee alors léegi euh, euh, euh, fecc bi difficulté boobu rek nga ci am mais amoo difficulté am ci xaalis yaa am xaalis. yaa sant yàlla mais difficulté daal dañ laa ŋàbb rek. Ah, sax man pour man. yàlla waa léegi nag. yàlla nañ la gën a ŋàbb. yàlla nañ la gën a sex. buñ la yàbbee nga nga pare. xam nga lool <laughs> buñ la yàbbi dootoo dootoo xew. sa eh, eh, moom. waaw fu mu ne fecc xam nga télé yi mu neex mu naqari loo bëgg gis lu bañ koy gis waaw ndax ba ma ñibbee sama kër yenn heure yi guddi bi damay jàpp télé yem si Petit Galle ko seetaan quoi pour xool waaw waaw dama koy suivre si Petit Galle moo a man du ma fecc waaw dama gë xam naa ni mën na fecc moom moom xam nga nag na dama yàlla mën na dogal bi ko yaayam bi ko yaayam di am dafa fekk ci diggu ndënd yaayam nekk ci diggu ndëndam waaw lu ADN boobu day nekk ci moom alors euh, ma jox wili wala ma laaj la ko yow qu'est-ce que vous préparez lan la lu xew. waaw kon Willy Willy Willy. waaw waaw euh, qu'est-ce qui se passe. We euh, Are. waaw c'est la rencontre des arts. We Are. waaw We Are c'est en anglais mooy nous sommes. waaw alors on a fait benn programme boo xamante ne dîner de gala la. waaw ñu def la rencontre des arts mooy dañuy def graffiti. waaw def humour. waaw def stylisme. waaw def danse. waaw def cinéma. waaw def musique. en en en compétition. non pas compétition. dañ koo def benn soirée boo xamante ne ni on veut vraiment que. waaw l'art mooy li ñuy wax rek. ñun ñoo war a mun a. que laar nous nourrit son son son nom. nourrit ba pare ñu promouvoir art en même temps. très bien parce que fu mu nekk nii dafa nekk loo xamante ni ñun ñoo mën a euh, dundal art pour art mun ñoo dundal. merci affaire bi tamit dafa nekk loo xamante ne ni. Hmm. Euh, chaque fois da ngay gis benn humoriste. Hmm. organiser benn programme mu gars yi ñëw mu jeex. waaw wala danseur bi wala musicien bi ñu organiser seen programme. donc wi aar lu ko tax a jóg mooy maanaam regrouper les arts. Hmm. ñu xam ni que ni ñun ñëpp war nañoo mën a bokk benn benn programme mu nekk fusion. Hmm. Hmm. alors bu ñu amee xel bi. ñu ne pourquoi pas ñu ñu yaatal ko. on a vu graffiti tey jii bu ñu ko waxee Sénégal ñu ko xam bariwul. alors ñu am koo xamante ne loolooy liggéeyam mu nekk Blaise Senghor aussi mu tudd Docta mu nekk ndaanaan ci lu muy def le le plus long du monde actuellement mu ngi koy def. te loolu nekkul lu yomb léegi mu ngi mu mu rejoindre wi euh, a ñu dem gis stylisme yi ñu gis euh, styliste yeeg ñëpp ngeen di mais bi bi bi am na fa benn styliste bu mën a ñëw Kamal Raw ah moom mooy Kamal ñawal na ma yu ay ñaw yu rafet moom ci biir wi aar la bokk waaw très bien na nga ma ko nuyul waaw dina ko waaw waaw waaw moom daanaan la essayé nii jot naa déménager sax ba defar na place ba mu gën alors yéen seen manifestation bi kañ la c'est le 20 septembre le 20 septembre fan bi Blaise Senghor ñaata def cinéma dafay am atelier de jours ah. après jour la ñuy def projection film fa nekk yëpp waaw maanaam dañuy commencer le 17 18 mais ku nekk ngay def da ngeen koy filmer quoi c'est filmé actuellement euh, directeur Ndiaga Ndour woo nañu. ba accordé ñu ne ñu vraiment. Mm. lépp luy captation ak li ñuy soxla. Mm. moom moo koy jël en charge. moom il est très ouvert Ndiaga il est il est il est ci affaire aar mm. ci Sénégal ak dimbali nit ñi. parce que ku yor tele bu tool nii. Euh, télé sax doyul nga ubbiwaat cosaan gi. def fi ay studio. Euh, waxoo kenn fayal pour ñu diffuser la sa dara wala kenn fayal pour ñëw ci sama émission. Ndiaga gis nga mu defal ñu une de temps boo xam ni difficulté bu théâtre kat am. wala musicien wala euh, wala fecckat wala loo am mën nga ñëw toog fii ñu waxtaane ko euh, alors euh, je crois que ni bu suba doonul woon jàmp damay invité la grande danseuse là maa ngi moom ñu waxtaan ci carrière bi waxtaan ci lépp mm. ñu toog waxtaan mu indaale beneen fecckat mm. suba incha allah. waaw mais daal beneen fecckat ñu waxtaan ci fecc bëgg naa nga indil ma fecckat suba. waaw waaw 18 heures na la fi fecc ñu wax ci pecc. waaw mais sax saxit ji. waaw loolu jàddu na ak maa mënoon a fecc. Eh, waaw waaw waaw waaw ma gis la nga def. loo xam ne mënoon naa ko nag. man mii di wax ak yow accident accident voiture laa am ma mënatuma mais mënoon naa fecc. Euh, saa yaa ngi wax ak koo xam ne man mii toog nii di wax ak yow. waaw du ma nangu daa doomu aadama bu ma. mais yow yow mais yow bon alors léegi muy durer une semaine. non euh, quatre jours. quatre jours dañuy bañ Blaise Senghor. c'est dû au.

Euh, wootal après ñu ma ñoo joxe kii bi non du ñu woote balaa ñu woote dañoo bëgg vraiment mu mu mu mu leer. waaw qu'est-ce que tu attends des autorités parce que ñu ngi may wax sama horaire bi que ni c'est fini là jot nañoo comme ni ñuy def rek ñun dañoo bëgg nekk en règle à chaque fois. waaw ci li ñu war a dem. dem ngeen ci bi bind nañu ministère bi. tontu na leen. tontu nañu ba nañu euh, imputé nañu ko direction des arts. très bien waaw loolu moom yàlla def na def na ko mais jot nañoo dugal tamit ci les partenaires. Oh, parce que dafa am loo xamante ne aar yëpp fu ñu tajee normalement. partenaire bu ci ne war na cee mën a dugal loxoom. merci beaucoup tu vois am nay sélices yoo xamante ne dañuy ñëw pour participer. waaw tu vois un peu ñoom bu ñu ñëwee participer ñoom dañ leen defaral ay stand yoo xam ne c'est tout. bon ok qu'est-ce qu'on va faire euh, ce qu'on va faire c'est demain. waaw tu vas revenir. Mm-hmm. avec deux danseurs wala moom. wala deux danseurs. invité naa leen wala équipe bi ñu ma yokk plateau bi mm-hmm. comme ça on va en discuter plus longuement parce que mi ngi nii waxtu mi ngi ñuy def ma bàyyi la nga tàggoo suba maa ngi lay xaar jarul élaborer lu bëri parce que suba je t'attends maa la maa la maa la invité maa invité sol maa la invité suba ba Willy maa la invité suba nga ànd keneen comme ça on peut on pourra discuter mën naa la ma benn affaire par exemple aar aar ci nekk yëpp waaw suba mën naa leen dajale kenn ku nekk nga xam te ni nga euh, euh, sunu partenaire euh, Orange mi nga xam ni mooy gunge émission bi fekk ah euh, ci li nga xam ni mooy euh, euh, Orange Money épargne li ngay def rek mooy yow mi nga xam ne am nga Max it parce que Max it xam naa ni ñëpp ko am fii ci Sénégal application la nga def ko ci sa téléphone Max it nga duggu ci Orange Money boo duggee ci Orange Money nga daal di dem ci li nga xam ne mooy banque. boo demee banque di fa fekk M tiret baobab ah, nga daal di cliquer foofu mën nga fay denc sa xaalis yow mi nga xam ne élève nga kat nga humoriste nga jaay kat nga mère de famille nga per de famille nga projet boo bëgg a def nga fay denc sa xaalis dinañ la fa defal mu jot 6 pour cent de taux mi ngi noonu ci écran bi ngeen gis que ñu ngi nag ci cëppaandawu émission bi yow la grande danseuse du Sénégal ak jafe-jafe yi fecc am fi mu toll nii ci Sénégal riwum pecc mi ak tolof tolof yi musiba yi dal suñu kaw eh, yooyu xam naa ne sax loolu du fecc ko lié et tout ça mais ñu waxtaan ci fecc de manière générale nan ngeen di demee bitim réew nan ngeen di defee seen ay collaboration ak tubaab yi ak américains yi dinañ ci waxtaan suba ma bàyyi la gaaw waaw aca demee ñu wax ci bu neexee ñëw. dinañ boo ñëwee nag bul sol lu xotteeku. wala yow yu xotteeku nga gën a bëgg. man dama sol lu xotteeku fi indi lii gis nga boo xoolee du lu xotteeku. très bien non dama lay tooñ man damay sol yii <laughs> aca ñu aca Seydina ñu tàggoo tey moom suñu émission bi doon nañu waxtaan fu am solo waaye wili daa réew. Euh, euh, waaw tàggoo bu gaaw wili man dama yow sa daal di lay wax sa daal di mu sol njëgu dépense wu. ñetti weer la waaye loolu loolu ci ngi nangu sama plateau bi. saa nag may wax ni tey sama dàll yi yaa moyt yi sama benn booy ma ko jox la poysi mbay nekk Colobane waaw moo fi jaay dàll authentique original la jaay numéro moo ngi nii 78 146 81 33 may bëggee ñëpp nag di ziar ba suba incha allah. acca ñu ngi nangu sama. wax nu waa Thiaré rek mu ngi noonu euh, yëmbal euh, ba suba incha allah yéen ñu yàlla may finaanam jàmm ba suba incha allah. incha allah acca ma ciy nuyu euh, sama sëriñ bi mi ngi ñuy seetaan ba envoyé ma message muy sëriñ Fallou Rahman ak soxnaam Bousso fële ci waaye ñoom Ablaye Fall ak waa Kër Gaak yëpp ñoom Fallou ñëpp maa ngi leen di nuyu bu suba ak jàmm